للمصطفى نويت ما يجدد سنته القرى وإني أغمد للمصطفى نويت ما يجدد سنته yi kon ñu ngi fii ak Serigne Bachirou Mbacke moom Cheikh Abdoul Khoudous Mbacke ci teewaayu Serigne Moustapha moom Serigne Cheikh Matilay Mbacke ñu doon sàkku rek ay euh, seede yoo xamante ni bi Serigne Bachirou dana ko def ci sang bi fi bàyyi ko di Cheikh Mahamad Lamine Bara Mbacké ak it sang bi fi toog toogaay ku tedd ki Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba di Serigne Cheikh Mati lay Mbacké nuy ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu Mbacké te wéral ko ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal maamam ji mu liggéey ko ci sagom kon Serigne Bachirou bismillah aouzu billahi min shaytaani rajim wa bashir as-saabiriina alladina ida asaabathum qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sadaqallahu mawlan azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki réew mi yépp maa ngi leen di nuyu fu waay mën a nekk di yëkkati suñuy kàddu ci ni nga xam ne noonu la ko sakkoon moo di fàttaliku bu baax ki nga xam ne moo fi bàyyi ko di sëriñ Mouhamadul Amine moom sëriñ Fadil di ñaan yàlla moom mi nga xam ne moom moom lépp te dara tawu ko lépp li nga xam ne jot na ko fee def liggéeyal ko maamam liggéeyal ko ay way juróom sunu borom dajale ko moom lu kawe njort te gëm nañu ne itam ne loolu noonu lay amee kooku nag nga xam ne moo di sëriñ Mouhamadul Amine. dafa mel ne buñ ko seetloo bu baax way juróom sëriñ Mouhamadul Fadil nga loolu nga xam ne moom la làmboo daf ko caa tibbal lu bare bari lim ko ci tibbal moo di boole gi mu ko njëkk boole ci sëriñ Touba kooku ci ngëneel yi la bokk wëlbatiku may ko ci ay jikko yoo xam ne li ñu jot a seetlu ci moom ci ab lewetaayam li ñu seetlu ci moom ci bari kersam li ñu seetlu ci moom ci ak laabiiram li ñu seetlu ci moom ci ñeme njaboot ak taxawu njaboot loolu lépp ci ngëneel yi nga xam ne moom la ko sunu borom jagleel ci la bokk waaye beneen bi ci gën a fesit moo di ñi nga xam ne ni la Serigne Touba demee ci boroomam ak cër bi nga xam ne sunu borom cërale na ko ko ci biir diine lislaam mu may ko lii nga xam ne moom la ko may ñëpp teg ci bët mu dem a dem ba ginnaaw bi nga xamee ne gisatuñu ko moom sëriñ bi gisatuñu jenn doom ji bokk ci moom te fawu yoon wi am ko koy jiite yàlla baaxee ko moom sëriñ Mahamadul Amin moomu mu nekk sëtu sëriñ Tuubaa bi njëkk a jiite yoonu murit loolu ba tey ci ngëneel yi nga xam ne sunu borom defal na ko ko ci la ci la bokk loolu itam mu doon loo xam ne lu rëy rëy la te muy loo xam ne itam secret sunu borom rek moo ko moo ko moo ko mën a maye kon bi nga xamee ne ñëw na. yàlla teg loolu ci loxoom teg ko ci boppam mu yanu ko mu yoonu murit mu jëfe ci noo xam ne li muy gàtt gàtt waaye gudd lay doon ndax def na ci ci loxoom loo xam ne def na ci ci kattanam ci yoon wi liggéey boo xam ne jàpp nañu ne ba ba dunay tukki du du far mukk ndax njëkk gee nekk sëtub Serigne bu ko wuutu rek doy na sëkk màndarga waxuma laa jëf ji nga xam ne jëf na ko ci ci biir yoon wi jëf ko ci dëkk bi nga xam ne Serigne Touba moo ko gënal ci kaw suuf dina Makka ak Madina kon moom Serigne Mouhamadoul Amine diirub li nga xam ne def na ko fi ci liggéey ci ci liggéey ko ci dëkk bi liggéey ko ci njaboot gi jàpp nañ ne maanaam li nga xam ne bokk na ci li gën a fes moo di euh, ni nga xam ne ni la dajalee njabootuk Serigne Touba gi. defe naa ne bokk yi toog ku mel ne Serigne Corom yi ak ñeneen yi nga xam ne ànd nañu ci yetti màggal yi nga xam ne jot na ko fee def moom Serigne Mouhamadoul Amine gis nañu ne euh, boole njabootug sëriñ Touba gi ci li nga xam ne mooy lu jëm ci wàllu euh, askan wi wala ci wala waaye nag ci seex yi ak lépp lu aju ci yoonu murit dajale ko mu nekk benn. liggéey bi doon benn di faral di wax ne mbir mi nun ñëpp noo ko bokk nañu seet nun ko defaree nañ seet nun ko yore dafa naa ne loolu itam liggéey la boo xam ne eh, bokk na ci pàggutee fi Serigne Touba yi te loolu buñ ko xoolee dañuy gis ni màggalug Touba eh, bu ñu doon natt di peese yoonu murit bokk na ci anam gi nga xam ne ci la ñuy xoolee ndax mat na wala manqué na bu ñu yàlla nattoo woon tey bi nga xam ne gisuñu Serigne Touba gisuñu doomi Serigne Touba màggalu Tuubaa gi ñëw yées na mu daan mel ñu ne bu fi mag ñi nekkoon kon dana doy waar lool waaye gis nañu ne eh, màggal yi jàll yett yi nga xam ne jiite na ko fi yokk na yokkuwaay boo xam ne mel na melokaan woo xam ne mbirum Sëriñ Tuubaa moo ciy feeñ kon yaakaar naa ne foofu bu ñu fi dee peese wala ñu fiy natt yoonu murit mat na sëkk ba weesu fa nga xam ne fa lañ ko doon xayma di ko fa xëyaasi kon loolu itam mu nekk ci li nga xam ne sunu borom jagleel na ko ko dimbalee na ko ko ci taxawaayam moom Serigne Mouhamadoul Amine kon Euh, buñ ko dee gàttal dañuy wax ne moom de nit la koo xam ne jëmm la joo xam ne sunu borom baaxee na ko ci biir baaxee na ko ci bitti baaxee ko ci biir boole ko ci euh, njabootu Serigne Touba baaxee na ko ci itam loo xam ne koo xam ne xamoo ci baatin dara it gis nga ne moom zahir si nekk na koo xam ne kii ku dajale ñëpp la. ku boole ñëpp la moo xam murid yi rek la moo xam jullit yi rek la boole waa réew mi yëpp la loolu nga xam ne liggéey na ko fi jëf ko ci biir jëmmi nit ñi jëf ko ci eh, njabootuk Serigne Touba gi jëf ko ci eh, dëkku sëriñ Touba bi defe naa ak ci biir réew mi yëpp laa mën a wax defe naa ne loolu du naax say mukk kenn du ko fàtte mukk te mu dajeeg jar barab boo xam ne bi itam eh, bu jamono yoo xam ne itam yu doy waar la ndax ku mel ne Serigne Salih cër bi nga xam ne sunu borom jox na ko ko mu mujj ci njabootuk Serigne Touba gi te yàlla may ko ci mu mën cee def loo xam ne kenn du ko dindi koñ ne tey jii nag yaa ko wuutu defe naa ne loolu bu la Serigne Touba jàppale wut sunu borom dugal ci loxoom dana metti lool ndax e, wutu Serigne Serigne Saliou ci yoonu yoonu Serigne Touba e, ak na nga xam ni e, ni la meloon moom Serigne Saliou ci ci ci ci ci ci gëm Serigne Touba ci ak njuliteem ci ak maanduteem ci ak taxawaayam ci liggéey ak ci njaboot gi kuñ ne tey ji yaa ko wuutu ci yoonu Serigne bi waxuma la ci biir këram rek day metti waaye waxuma la waaye yoonu murid yi dana diis lool waaye loolee ba mu amee itam. ñu toog ab diir ba weer wi dellu si gis nañ ne mbirum Serigne Touba moo ko yoral boppam sunu borom teg ci loxoom te loola feeñ ne bu baax a baax ci nekkinu Serigne Mouhamadul Amin ba tax na kon noo ngi koy jaal. mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ Mahamadul Fadil tàmbale ko sëriñ Abo ak ba ci ki gën eh, féete ndaw nekk sëriñ Cheikh Awa Balla moom sëriñ Fadil waaye itam di ko jaale itam di ko ziyaare njabootu boppam gi nga xam ne sëriñ Moustapha moo nekk ca ci bopp ba eh, ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la ko ñoom la ko bokkal di ko jaar di ko ziyaare njabootu sëriñ Touba gépp tàmbalee ko ci kii nga xam ne tey ji moo toog jotaayu Serigne Touba muy Serigne Cheikh Matili mi nga xam ne yaakaar ji rëy na lool ci moom te yaakaar ji yaakaar naa ne incha allah lu nu ci yaakaar sunu boroom dina ci defal lu kawe sunu njortu ndax ab junj doy na boroomu xel kon yaakaar naa ne buñ ko jaalee ñoo ñëpp itam dana baax it nu jaar ko mbooleem koo xam ne kii yaa ngi nekk ci réew mi te duñ ca bàyyi kenn ak murit yëpp nag jullit yëpp baa réew mi yëpp waaye dinañ ci teq itam taalibeem boo xam ne yàlla dogal na tey jii moo nekk ci bopp réew mi muy président Abdoulaye Wade kon ci taalibe yi la bokk waaye am na am na jagleel itam jiite réew mi kon moom itam ñu di ko koo jaal te gis nañu ni mu àndee woon ak moom gis nañu itam li nga xam ne war nañ ko ko mën a jaale moom itam kon bàyyiwuñu kenn ci mbooleem koo xam ne yaa ngi nekk ci réew mi rek wala nga nekk ci àdduna bi ci mboolem di jullit penku ak sowu ndeyjoor ak camoñ kon ñu ngi koy ñu ngi koy siyaare ñëpp di ñaan yàlla Eh, guddi gi nga xam ne moom la fanaan si ci barabam bi njëkk fee yandu bëccëgu alxames bi te maamam ju baax ji Serigne Touba noonu la defoon àllarba lañ ko indi mu fanaan si Touba alxames la njëkk yandu ci barabam be defe naa ne nuroo googu eh, mbirum suñu suñu borom feeñ na ci kon loolee nga xam ne moom la ñu gis rek ci eh, suñu gisu gis gisu doomu aadama suñu borom nan ko xëccal ba lan ca foog ci biir ak lan lan njortu mu defal na ko lu kawe suñu njortu moom mi nga xam ne moo waxoon ci hadisu rabbani yi bi na jortu ko neex lu mu jort moom laa koy defal kon jort naan mbirum Serigne Touba bis bu nekk eh, daf lay fàtteloo démb ja lu ñëw ëllëg mooy daq tey ji loolu moo ñëw ba fii nu toog tey ji kër Serigne bii di Serigne Cheikh Mati Ly nga xam ne tey jii moo fi toogal Serigne Touba te mu nekk koo xam ne wax naa léegi ne eh, yaakaar ji ci moom rëy na lool te yaakaar ji luñ ci yaakaar rek lu kawe lu ëpp loola ngi ci ca biir ndax it nag. kuy xool tey gis te am tuuti gis-gisu biir xol eh, da nga xam ne eh, fii mu toog ak eh, ak ak ni muy doxalee da ko mate moo tax te it Serigne Touba fu ko matul du ko fa def fu mu sumb it foofa la ma wax léegi itam ne. Euh, nun day Serigne Touba mooy jëmm ji moom la ñuy moom la ñuy topp di ko di ko di ko di ko gëstu di ko seet ba tax na euh, jeex itam yooyu nag fu takk ndeer ba jublu rek foofu la ñuy xool takk ndeer bi jant bi dana ko jëmale penku dana ko jëmale sowu tey jii nag fii la ko jëmale mbooleem koo xam ne kii yaa ngi yaakaar Serigne Touba euh, lépp nekk na ci loxol Serigne Cheikh Mati lay tey jii te it nag euh, loolu nga xam ne mm, waxoon naa ko ci jataay ba ci jamonoy sëriñ Mamadou Amine ma wax ko léegi ci kanam Serigne bi muy dégg loolu laa gëm te xam naa ne itam nag euh, ku Serigne Touba ñor ku nekk te nga gëm ci Serigne Touba lenn loo xam ne jàpp nga ne mën na la ko tey ak ëllëg loola ngay gëm moo dina am na ci loo xam ne Serigne bi bu koy wax waxalu ko boppam ñeneen a tax di ko wax. loolu kon lam doon wax ne birazuman barazani birazuman yu bari barisul muntaqimal bari zaman def naa ne booba ku dem nag ba gisatoo Serigne Touba gisatoo njabootam nga jàpp ne ñi fi nekk mëtuñu loola wala duñ ko wala duñ ko duñ ko matale defe naa ñoo ñoo taxoon muy wax kon ku defee ne boo téyee sa loxo du baax téyel ba xam ku defee ne soo noppee du baax noppil ko defee ne boo la nga waroon def lépp soo ko deful ñu xam ne yow manqué nga ci téyel ba xam boo soo boobaa da nga xam ne Serigne Touba sunu borom jiitaloon na ko démb may na ko démb tey door a ñëw te dara li wolof yi wax ne xaddu damm xaddu damm incha allah kanam rek lay jëm te yaakaar naa ne euh, sëriñ bi nga xam ne moo di sëriñ euh, Cheikh Mati Lay euh, di xalifatu Cheikhul Khadim tey jile liñ ci gën a war a mën a santeer moo di suñu borom moo dàq programme yi ñëpp ndagam doomu aadama ci boppam mooy mooy programme yi ñu ne jub na borom yi nga xam ne. Euh, nekk nañu xalifa xam nañu leen waaye am na ay doomam yoo xam ne nekkuñu ay xalifa kon sëriñ Serigne Mouhamadul Amine Baara bu njëkkee nekk xalifatu Cheikh al Khadim ci sët yi itam mën nañoo wax itam ne euh, defe naa ne buñ ko doon wax rek ci loo xam ne doomu aadama dong koy wax dañu wax ne équilibré na moo di euh, Serigne Cheikh Mati lay moo njëkk nekk xalifab sëriñ Touba boo xam ne baayam nekkul woon xalifab Serigne Touba loolu ab cër la maandu te mënut a weesu loolu. sunu borom dafa dafa maandu al ak al adlu sunu borom dafa dafa maandu ba lépp lu muy def lu nekk dafa bëgg nga xool ci ak maandu gi yaakaar naa ne eh, su doon lu doomu aadamay def rek di ko di ko teg ci yoon itam du mën a weesu loolu cër bii ñii la cër bii ñii la cër bii ñii kon sëriñ bi sédd na ñi nga xam ne seen i wayjur nekkoon na euh, nekkoon nañu ay xalifa waaye sédd na ñi nga xam ne seen i jur nekkuñu woon xalifa kon loolu lépp matuk Serigne Touba rek lay lay tekki ñu gisee ci nag nun day ndekte suñu cër bi doy na sëkk ab cër mat na ak sëkk ab cër ba li nu gëm buñ ci dellu ginnaaw buñ ci yox yox buñ ci xool keneen buñ ci déglu keneen gis na mbirum Serigne Touba waxtu wu nekk lu mujjee ñëw dafa lay fàtteloo la nga xam ne moo mooy mooy la ko jiitu woon loolu mooy moo am bis ne ki tey ba tax na kon li nga xam ne man day euh, moom la ma sëriñ Cheikh euh, Khady euh, wax keroog bi nga xamee ne denc nañu ba noppi mu ne ma bala ngeen a dellu si na ngeen ànd boolem koo fa nekkal te ànd te dëkk Darou Mouhty ngeen ànd ak sëriñ Cheikh ba ca kër ga nga xamal ko ne maa ngi fi waaye yéen ñooñu seen loxo yooyu moo moo moo moo fa wuutu mbooleem loxo yi kuy doomi borom daaru te nekk ci kaw suuf ak sëti borom daaru yi ak njabootu borom daaru gi lépp ngeen woon ci loxoom gis na ki tey moom la ko yàlla jox jox nañ ko ko ba asamaan seete mu boole ma ak ki nga xam ne moo topp ci moom ginnaaw moom moo mag ci njabootu borom daaru muy Serigne Abbas mu ne delluwaatal xamal ko ne ko fedd li dafa baax ñoo ngi fedd li ne Serigne Abbas mi mooy mooy samay tànk mi ngi noonu kon la ñu waxoon bi ca guddi fedd li ko tey ci ci bëccëg bi bi ma ko waxee léegi Serigne bi ne ko dafa maa yebbu nu war a dellu siwaat ci ci sa kanam xamale ne foo yëngatu loo nekk ma nga mi ci sa biir day seet ba xam fan yi kañ lay war a mën a ñëw mu ne ma nee ko toog rek nekkoon a toog kon loolu loolu lu ñu seq ñoom ñaar la ba xamee ne agsi wu doon fii bañ li bi ñëwee itam loolu da ko gën a feddali li nga xam ne nag moom laay ci daaneele te mu gën a dal xel moo di ne keroog bi nga xamee ne jëbbal nañ ko njabootu borom Daaru Muxti gépp bi mu ne nangul nañu leen ko euh, la la nodd gi jib muy muy muy muy muy muy muy noddu fajar bi ma xam ne kon sunu borom nangu googee dugal na ci loxoom kon nag dañu fas yéene rek lan daan wax moo di Daaru Muxti moom waxtu wu nekk day topp ci ginnaaw Touba di déglu ndigal ndigal di Touba lay jógee ku fi nekkal Serigne Touba lu mu wax loolu la ñuy def genre bi mooy la nga xam ne mooy la fa nekkoon moo di borom Darou Mouhty dafa wax ne Serigne Touba lu mu bëgg dana am te lu mu ma sant danaa ko def ku fi nekkal Serigne Touba ku nekk loo sant ku fi nekkal borom Darou Mouhty noonu la koy jàppee noonu la koy jëfee ñu gën cee dal xel bu baax it nag ne Serigne Mouhamadou Serigne Cheikh Mati Lay mi nga xam ne moo di xalifatu Cheikhul Khadim tey ci kaw suuf xam ñu bu baax way juróom Serigne e, Baara e, ni mu demee woon ci borom Darou Mouhty ci ci ndigalu Serigne Touba te loola jëkku jërul ñu nekk fii di ko di ko di ko yaatal waaye gis nañ bu baax ne euh, ab cër la boo xam ne cëru euh, borom Daaru Muxti la moom Serigne Mouhamadoul Amine gannaaw bi nga xamee ne euh, lépp nekk na ci biir ndigalu sëriñ Touba. sëñ Bass doguma la sànq biy toog toog ay côté da ci Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba di Serigne Cheikh Mati lay digganteem ak Daarul Muxti noonu nga ko waxe ndax këram nga ne màggalu daaru gi jàll la ko sañc waxoon naa léegi ci biir nii ci moom laa njëkk a gisee xari tabaski yu mu indil Cheikh Abdoul Khoudous bu ñu ko daan wàccee dafay toll ni ay nag te gis nañu ni liggéey bi Cheikh Salih Mbacké mujj liggéeyloo sa waajur Serigne Abdoul Khoudous muy euh, gorob Taïba ba moom Serigne Cheikh Mati lay def na ci woote boo xamante ni bii ci rajo yi waa Daaru Muti sax euh, defuñu ko ci ba am na benn waykat bu waxoon ca euh, liggéey ba nii doonay Serigne Baara Mbacké yal na fan wa di doj delloo na doole jëwaa kër bam borom daaru sëñ Cheikh Mati lay nee na mbooleem kuy murit bu ma gëm tëgam Serigne Bara dem leen fekk ji daaru xam na ni bàyyam ba bis boobee maamam ja demee ci géej gi moom la ñu bàyyi woon borom daaru moom mag ja Cheikh Moustapha ak Cheikh Fallou ñoo fi desoon mu dénk leen yàlla yoneen ba ak borom daaru yàlla na buur ba di kun defal ko moom lu kawe njorta mu ànd ko ak nun waa kër borom daaru nu bëggoon rek nga ñëwal nu ci diggante Serigne Cheikh Mati lay ak daarul xanaa mottali ko rek waaye li nga ci wax doy na sëkk li ma tàmbali woon it doy na sëkk waaye loolu euh, li muy tekki mooy diggante Serigne Touba ak borom Darou Mouhty koy bun mandu ci rek. démb bi ñu fi jógee dama wax ñi ma àndaloon ma leen euh, euh, Serigne Cheikh Mati lay kër gi mu defar Darou Mouhty sanc ko bi ne ëllëg la màggal gi muy daaw màggalug Darou Mouhty ñu toog ba barki demboo Ndiaye sëriñ Baara wax ne dafa bëgg a defar kër moom itam Darou Mouhty ñëpp di wax ne xalifab Serigne Touba buy liggéey kër daarul Mouhty day am na lu muy tekki muy tàmbali sëriñ baara boobu yàlla dogal euh, kenn koo xam ne kii sunu borom soxla na la di la jël te bàyyi woo mébét amut faw nga bàyyi mébét sa ginnaaw kon kër googu bi mu ko tàmbalee te àggul it xoolal ki ko wuutu tey moom fekk na fekk na moom sottaloon na këram daaw euh, ren door a ñëw ma ne nag kon léegi mbirum Serigne Touba ak borom Darou Moti koy bund ci maandu di bàyyi xam ne ñoom ñoo koy womatal seen bopp ndax yéene ji nga xam moom la Serigne bi amoon di ko naal te sottiwul te fekk na kii koy wuutu moom sottaloon na ko ba noppi kon loolu fañ koy sottalee nun fekkiwuñ ko kon yaakaar naa ne li nga wax léegi euh, Serigne Cheikh Matilé ak Darou Mouhty dafay loo xam ne li da ko teg ci diggante borom Darou Mouhty ak ak way juróom Serigne Mouhamadoul Amine waaye itam diggante Serigne Touba borom Darou Mouhty loolee lay dundal di ko dundal dundal goo xam ne yow li nga ci gën a seetlu sa ci digganteem ak Serigne Abdoul Khoudous yooyu ngay lim noonu yu ko ëpp daana ñëw waxtu wu nekk euh, chauffeur ba di ko indi wala Serigne Moustapha mii di ko indi waxtu wu ne ñu xam ne Euh, euh, Serigne Cheikh ndawam ñëwati na xam ne dañu mujj miin ñu koy indi euh, yaakaar naa ne yal na ko yàlla yërëm safaaram bi nga xam ne moo santoon wan ñu bëree bari xam nañ ko ci ci ci njaboot gi lu di ay xar lu di ay ginaar la di waxtu wu nekk rek xam nga nag yàlla su bëggee dimbali ab jaamam moo xam fa muy jaar ba dimbali ko sëriñ bi bi nga xamee ne maanaam bokk na ci Serigne tubaab ba noppi jikko ji pas-pas bi dafa nekk loo xam ne mën naa àggale euh, doomu aadama fu nekk waxuma laa cër boo xam ne amrun la du nii ji la loo xam ne sunu borom fa mu koy defee kenn fekkiwu ko lam ca ca dogal moom rek moo ko xam kon sëriñ bi li ñu ñaan yàlla rek mbay moo di ne yaakaar jooju nga xam ne am nañ ko ci moom sunu borom dëgëral lañu ko yaakaar ji nga xam ne am nañ ci moom ci yoon wi yoon yëpp am ko ci moom sunu borom àggale ko ci ci loxoom defal na lu kawe sunu njortu ñuy déglu ay ndigalam di daw ay tereem yàlla sàmm ko bu baax a baax sàmm yoon wi te yaakaar naa ne rek incha allah lu mu fi gën yàgg it dana loo xam ne ñëpp danañ ci teg seet bët te mu ngi fi suñ kanam kon ñu ngi koy jàll ñëpp moom sëriñ Mahamadul Amin mi fi bàyyi ko di ñaanal yàlla sëriñ bi nga xam ne moo fi nekk mu gën fee yàgg mboolem ku ko jiitu woon man fee def loo xam ne lu waa yéene woon ci sëñ Modou Moustapha ba agsi ci moom mi mu ko ba defaale leen ko sunu borom mën na ko moom nag ndegam mën na ko te boo koy sëf da nga koy sëf lu mu attan sunu borom attan na lépp sëf nañ ko lépp mboolem loo xam ne lu fi nisër la luñ fi nisëroon la luñ fi yéene woon la ci ci njaboot gi yéene ko ci dëkk bi sunu borom may ko moom mu àggale ko ci nam ko soobee ci kattanam ànd ak sago sunu borom dara tëwu ko na ko koy ñaan di ñaan Serigne Touba mi nga xam ne mooy sunu buntu ci sunu digganteeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne sunu yaakaar yi tey ak ëllëg lépp ci moom la nekk moom moomu nga xam ne amuñu lu may moom sunu gëm gi nga xam ne moom la ñu am wékk ko ci moom dara bañ ca yàqu dara bañ ca sikk te xam ne nan ko séentoo rek dana ci defal lu kaw sunu njort asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh حمدت ربي بلا تنايب على بزير آمر ونايم بلغت ذكر الله بالإله ومن أذى أعزني إلاي ملكني الباقي بلا مبايب ما لي باع بلا